jàpp ne daal mooy analyse euh, bu gën a gàtt daal ba nga xam ne def nga ko ci li nga xam ne moo di législative yi élection yi nga xam ne nag am na solo lool dañuy dem directement sans lui parce que Moussa Ousmane Diagne xam ngeen mu ngi foofu euh, kii di ancien ministre de l' intérieur du maître Ousmane Ngom accompli na devoir def na devoir citoyen euh, mi nga xam ne moo ñu fa toogal mooy suñu correspondant permanent laata ñoo dellusiwaat ci plateau bi déglu tamit réaction Ali Haïdar mi nga xam mooy le ministre de l'écologie moom tamit voté na ci coalition Benno Bokk Yaakaar la bokk bu ñu ci paree déglu tamit euh, euh, kii di Bokar Dieng nekk ca Fatick xam ngeen Fatick mooy fu makki Sall bëgg nañ tam dem xam lu fa xew tuuti mais bu fekkee Moussa Ousmane Diagne mi ngi en ligne ñu jël ko Moussa. waaw bu dee ministre d'État mu ngi ak yow ñu yow ñu bàyyi la kaddu gi. waaw merci pour la euh, patience. Euh, donc euh, euh, ministre d'État tey jii ñëw voté nga ba pare yaa ngi ci def nga tour ay centre gis nañ ni dugub bi fii sax xawoon na métti trop en tant que koo xam ni da nga doon yàgg di organiser élection à mi parcours man gis-gis nga gis ci élection législative yi. écoutez ma wax wolof d'abord ah, doole waaw kon nag. jërëjëf maa ngi lay. <laughs> waa 2STV yëpp. Euh, bi may jëkkee mooy sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi ma yàlla mayee ma wat élection législative yu premier juillet deux mille douze. Euh, muy élection yu am solo ndax mooy élection yi nga xam ni ci lañuy ñuy tànn ndawu réew mi te ku ne xam na ni ndawu réew mi ñoom ñooy dogal lépp loo xam ni war nañ ko doxal ci réew mi diiru at mi yëpp kon nag bu ñu leen di tànn war nañ ko faratal fulal ko ba nga xam ni. bés bu ñu leen toogee foofu ñu am këdd am daraja gi ñu war a am pour mën fa toogal dëgg-dëgg xeet wi yëpp ba loolu moo tax ñu doon ñaax boobu ba léegi euh, waa Sénégal yëpp ci biir campagne électorale pour que ñu mobiliser nu raw wala boog nu tolloog ni nga xam ni mobiliser woon nañ ko ci élection présidentielle parce que élection député yi dafa am yeneen enjeu non seulement tànnum ndaw réew mi la mais itam dañ ci war a profité wu pour équilibrer pouvoir maanaam wolof Njaay dafa wax ni kenn du jox kenn lépp dañu war def parce que boo ko joxee lépp rek dafay daal di doon buur ak bumi ah te su boobaa xëy na dana def li ko neex ah tey itam dana agsiwaat ba nga xam ni a ah, Sénégal mën na fi jógee sooxe ba moo tax ñu ni nañu fexe ba ci tànnum ndawu réew mi ñu équilibré pouvoir bi maanaam fexe ba ah pouvoir bi nekk lu digg dóomu am exécutif bu nekkee benn boor. législative yi dem nekk beneen boor pour que ñaari pouvoir yooyu mën a di avancer ndoo pour réew mi mën a jëm kanam loolu nag la ñuy moo tax ñu yaakaar ni ah, sénégalais yi dinañ mobiliser wu bu baax ci élection législative yi pour loolu mën a am gis nañu ni ah, ni ñi jógewuñu nañu jóge woon ci suba si ci élection présidentielle mais am nañu yaakaar ni fii léegi après midi bi dinañu gën a jóg ak doole ah, parce que bureau yi ñu waragum yëpp gis nañu ni daanaka àgg nañu presque trente pour cent ci taux de participation ñu yaakaar ni xëy na taux boobu donc dana yokk bu baax a baax euh, ñu rafetlu ko te di ñaax nit ñi pour que ñu dem wote ji ndax bu ñu tànnul ay ndaw réew yoo xam ne am nañu gëdd ba ca war ak daraja ba ca war ah soo lëg ak si biir suñu fi doxalee politique yoo xam ni dëppoowul ak bëgg-bëggu réew mi fexewul réew mi jëm kanam ah ñoom seen bopp rek lañ koy mere ba moo tax ñu yaakaar ni nit ñi danañu jóg bu baax a baax dem wote ji yaakaaroon ni euh, euh, waaw loolu mën nañ ci réfléchir ndax bu weesoo loolu nga wax am na sax beneen yeneen avantage maanaam dana gën a ñoŋal alalu réew ndax élection bu ñu ko boolee mu nekk ci euh, benn bés ñaari élection yëpp dana gën a ñoŋal alalu réew li taxoon ñu taxale woon leen bu njëkk booba Sénégal dafa amagul woon ay kuréel ak ay équipement yoo xam ni dana garantir transparence dana garantir liberté ak démocratie vote léegi nag Sénégal fi bu toll ci wàllu élection jiitu na sax réew yu mag réew yu développé parce que kuréel yi ñu am mu di Sénat mu di yeneen commission yi mu di observateur yi mu di équipement yi nga xam ne am nañ ko muy carte mhm. d'identité numérisée ak carte d'électeur numérisée ak ni wote bi di déroulé ci bureau de di tax na euh, Sénégal mhm. donc vraiment nekk na li ñuy wax une grande démocratie ci wàllu élection kon dara mënul tere ñu boole ñaari élection présidentielle ak législative ak transparence bi c'est garanti te itam dana gën a ñoŋal alalu réew bi kon yaakaar naa ni loolu lu ñu mën a def rawatina dana tax taux de participation ci élection législative aussi yéeg ba tolloo presque taux de participation présidentielle ndax ci réew yëpp ci àdduna bi boo demee fekk ñu teqale euh, élection présidentielle ak législative présidentielle bu ëpp taux de participation kon nag bu ñu defee loolu nga wax danañu fexe ba xëccaale taux de participation bu élection législative mais loolu réflexion la maanaam xalaat la laaj boo xam ni ñëpp war a toog ñi nga xam ni ñoo seq politique yëpp waxtaan ci ba déggoo ci mu am consensus ci loolu. en français Maître Ngom vous avez euh, voté il y a cela quelques Vous avez également visité quelques centres euh, de vote. Vous êtes présentement à Rawan Ngom. Quelle analyse donc euh, faites-vous euh, à mi-parcours de ces élections je voudrais dire que je voudrais rendre, grâce à Dieu le Tout-Puissant et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa d'accomplir mon devoir de citoyen à ce jour du 1er juillet. Les élections législatives sont très importantes car elles permettent de choisir la représentation nationale et il faut que cette représentation nationale soit bien euh, souveraine, c'est-à-dire euh, qu'elle ait euh, toute la force nécessaire pour représenter véritablement la nation. Et pour cela, il faut une participation massive des citoyens. C'est pourquoi pendant toute la campagne électorale, nous avons lancé un appel aux citoyens euh, pour qu'ils participent à ces élections. Mais aussi pour qu'ils puissent de ces élections pour rééquilibrer le pouvoir. Car le pouvoir arrête le pouvoir et aujourd'hui, nous devons tout faire au Sénégal pour qu'il n'y ait pas euh, tous les pouvoirs d'un seul côté. D'abord, ça peut être source de dérives et de dérapages incontrôlés, mais ensuite, ça peut empêcher une partie importante, voire la moitié de la nation, euh, d'être présente dans, dans les institutions et au niveau de la scène politique. Et c'est pourquoi ces élections sont une occasion exceptionnelle pour un rééquilibrage du pouvoir politique. Qu'il y ait d'un côté un pouvoir exécutif fort et de l'autre côté un pouvoir législatif fort, mais qui est surtout euh, euh par les autres forces politiques. Ceci permettra au Sénégal de marcher sur ses deux pieds et donc consolidera notre démocratie et notre marche vers l'émergence. Nous avons bon espoir que les électeurs et les électrices ont bien perçu ce message et à l'occasion de ces élections donc vont se mobiliser pour que nous puissions obtenir ces résultats que nous escomptons. Merci, merci. Euh, Allô Moussa matin, À partir de ce taux oh. qu'on observe, euh, de ce matin, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est grand temps de coupler ces élections Écoutez, c'est une réflexion en tout état de cause, je crois qu'il y ait une concertation entre les acteurs politiques afin que nous puissions arriver à un consensus sur cette question. En tout état de cause, je crois aussi que euh, ce serait une bonne chose non seulement pour tirer le taux de participation pour les élections législatives, car tout le monde sait que dans tous les pays du monde, le taux de participation de la présidentielle est plus important que euh, pour les législatives. Mais au-delà de cela, je pense que ce serait également une économie budgétaire importante d'avoir euh, les élections présidentielles et législatives le même jour. Le découplage avait été nécessité par euh, le fait qu'au Sénégal, à l'époque, on avait beaucoup d'appréhension par rapport à la transparence, par rapport à la liberté des élections, par rapport à l'exercice la, la libre de la démocratie. Mais aujourd'hui que le Sénégal est devenu une grande démocratie, que le Sénégal s'est doté d'équipements euh, très modernes, que même beaucoup de démocraties anciennes et développées n'ont pas, euh, je parle des équipements techniques comme la carte nationale d'identité, la carte d'électeur numérisée, mais également le processus de vote avec les représentants des partis dans tous les bureaux de vote, avec aussi les observateurs nationaux et internationaux, avec les institutions de supervision comme la Sénat et Aujourd'hui, le Sénégal a la capacité d'organiser deux ou trois élections en une même journée dans la transparence et dans la démocratie. Et par conséquent, il faut mener une réflexion pour que nous puissions euh, économiser, pour que nous puissions faire économiser au peuple sénégalais beaucoup de milliards euh, pour l'organisation des élections. des milliards pourraient servir à autre chose, pourraient pour la jeunesse, pour les femmes, pour les personnes du troisième âge et pourquoi pas pour les agriculteurs pour aller plus vite encore vers l'émergence. Voilà, merci, merci Moussa Ousmane Diagne. Merci à vous également, Monsieur le ministre d'État Ousmane euh, qui euh, Euh, qui s'exprimait à l'instant même euh, euh, sur nos ondes. Ah, alors, juste un petit mot. Abdoulo, ah, bon, on a terminé hein, parce qu'on doit arrêter à 14h. Euh, juste un petit mot parce que tout à l'heure, vous m'avez soufflé donc, euh, alors que secondes. vous voulez juste donc, réagir oui, par rapport à la déclaration de Swangam. C'est hein. le type de déclaration politicienne qui, mmh. qui ne favorise pas, si vous voulez, la, la prise de conscience enfin l'intéressement à la chose politique. Mm -hmm. Parce que le même monsieur, vous tenez le discours inverse il y a quelques années de cela, vous, direz, vous disiez qu'il fallait donner une majorité absolue au président, mm -hmm. euh, qu'il défendait, qu'il fallait lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et là, parce qu'il a changé de bord, il vous dit non, il ne faut pas donner une majorité à l'actuel président. Je veux dire, ce n'est pas parce que on est politicien qu'on doit dire tout et n'importe quoi et tout et son contraire. Mmh. Tant que le discours ne sera pas structuré, fondé sur de la conviction, je veux dire les Sénégalais prendront leur distance par rapport à ça. Il faut quand même moraliser, si vous voulez, un peu plus la vie politique sénégalaise, en commençant par ce type de discours-là. On ne peut pas défendre une chose et son contraire parce qu'on a changé de camp. D'accord. Donc, euh, tout à l'heure, nous aurons peut-être probablement la réaction Euh, d'autres leaders politiques également. Et nous verrons aussi ce qui se passe aussi du côté de Fatick avec Bocardien, euh, parce que là, on est rattrapé par le temps. Adam Akande, je vous laisse donc juste un mot, ou bien je laisse au professeur. Oui, oui le professeur qui va juste boucler par, par, ce, okay. ce qu'on avait fait, euh, le constat qu'on avait fait tout à l'heure. Il va juste, on lui avait posé la question, mm -hmm. le fait que sur le, sur le troisième âge et les femmes qui votent, donc en quelques secondes, on boucle par là. Euh, pour observer un petit répit avant de, de revenir. Oui, rapidement et de manière vraiment superficielle. Dire que, par exemple, dans les partis politiques, la plupart des militants sont des personnes du troisième âge, peut-être euh, aussi les femmes, et que euh, les femmes sont peut-être aussi motivées pour cette fois-ci par euh, la parité, ouais. parce que c'est important, il ne faut pas, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Et qu'ensuite, euh, les jeunes

Parce que c'est ce que je disais au début, mhm. pour eux, l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien. Et que le jour où l'Assemblée nationale voudra aussi leur imposer des lois qui n'iraient pas dans le sens de leurs intérêts, ils, sont, ils seront peut-être prêts à sortir à nouveau dans la rue pour essayer de reprendre le pouvoir. Donc c'est vraiment, moi, la lecture que j'en fais. Okay. Euh, donc, euh, je souhaite vraiment euh, que le peuple sénégalais sorte dans l'après-midi pour aller voter, pour au moins renforcer la légitimité populaire de l'Assemblée nationale. Madame Akandé, le mot de la fin Oui, le mot de la fin, c'est demander encore une fois, comme là où, par où il a terminé, moi je, je termine par là, demander aux personnes, aux Sénégalais de sortir, d'aller voter. C'est un devoir d'abord, mais ensuite, euh, parce que, encore une fois, comme l'ont dit nos invités, l'Assemblée nationale est une institution importante, et même très importante, dans toute démocratie. Tout à fait. On remercie également au passage... Euh Euh, les téléspectateurs aussi qui étaient très nombreux à nous suivre également. C'est vrai qu'aussi le, le, le, sociologue Ali Khoudiadja voulait participer. En fait, ils sont nombreux, hein, euh, les intervenants qui voulaient participer vraiment en direct à cette émission. C'est vrai qu'on est poursuivi par le temps. Le programme oblige aussi. On doit marquer une petite pause, laisser un peu l'antenne souffler également, euh, pour laisser les téléspectateurs suivre également autre chose aussi. C'est important. Le temps de revenir tout à l'heure Euh, sur ce, ce, cette, euh, ces, ces législatives hein, pour vous dire que ça continue tout au long de la journée et de la soirée également. Papalé sera là. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, les téléspectateurs. Le seul mot qu'on peut dire pour l'instant pour euh, les téléspectateurs et les Sénégalais d'une manière générale, allez voter parce que c'est important. Euh, ce sont des élections très, très importantes. L'Assemblée nationale est très importante, il faut aller voter en masse. Euh, pour pouvoir donc vraiment dire que oui, j'ai participé donc euh, mhm. à l'élection d'un tel député, cette Assemblée nationale, j'y ai participé, j'ai voté, j'ai accompli mon devoir de citoyen. Merci à vous les téléspectateurs. Euh, bonne suite de programme sur la DSTV.